yéen a ngi fësal seen cofeel jëmale ko ci ñun doore ko nag eh, ci maladie tëddi ci hôpitaux yeeg ñi yooyaale seen i jàngoro ñëpp ñu ñaanal leen yàlla fëgg seen bopp ñi caabi féete ginnaaw yàlla génne leen waaye way dawlu itam ñu ñaanal leen yàlla atte leen ci yërmandeem jéggal leen seen i bàkkaar tàbbal leen ci àjjana yi gën a kawe kilifa diine yëpp ñu nuyu leen ziyaar leen ñaanal leen jàmm yàlla yàggal leen fi kilifa aada itam naka noonu yàlla dooleel leen ba yéen bi ñu yenu ñu mën ci dara waaye ànd ak lu mën a xew képp koo xamante ni yaa ngi toog jamono bi jàkkaarloog sa ngën gi tele di la 2STV di seetaan sa émission kër gi yëgal ne ñu ngi lay bàyyi xel bu baax a baax di la ñaanal jàmm di ñaan jàmm ci réew mi mbas mi yàlla na ko fi yàlla teggi teggi ko ci mbooleem réew ndax nag wax dëgg yàlla jokk jolaate moo tax mu yegg si fii kon lu waay di ñaanal jàmm rek na ko ñaanal àdduna bi yëpp ba tax na ci lay xuus sax fekk ji mbokk yi nekk bitim réew moo xam réew mu ñu mënti nekk nag ci réewu Afrique wala ci réewu nit ku weex nañu yëg ne rek ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla sàmm leen di ñaan itam la leen tax a génn réccu bañ cay am waaye ànd ak lu mën a xew yàlla na ñu yàlla defal euh, defal leen euh, ñu ñibbisi ak seen euh, sagos bopp. dellu si wat nag tey niñ koy defee rek semaine bu nekk war a waxtaanee benn thème gis ngeen ko jamono yi kër yi lañ doon waxtaaneek ñoom seen waaye nag jàpp nañ ne faaw ñu dellu si waat ci biir kër gi waxtaanee loo xamante ni mi ngi ci biir kër gi ba suñu jon yàlla tey. Mm, te fu ne waxtaan nañu ko fa waaye nag euh, solution xëy na du mën a ñàkk ma ànd ci nag ak sama chroniqueur Pa Omar Dieng ak beneen chroniqueur Oustaz alin Mbaye ngeen na moon ko lool waaye tey dañuy jël cër beeg lépp jox ko ko ndax mooy sunu kilifa te dañuy sàkku barki ci moom kon Imam Ali ñu ngi lay nuyu di la ziar di la wax ne sañ-sañ nag. Hmm? <laughs> Ah. fi ma génne baax na nooy na. nooy na ñëpp kay. <laughs> shukran. barakallah kon nag maa ngi maa ngi lay nuyu Mbaye. maa ngi lay fay macha allah di kontaan la namoon non fii la ëppee fii am solo. yii la ma ko namoon. ndeysaan boo soxna yi boo tàggoo damay dem télé. ndeysaan. Eh, loo génne ñun la di solal bii génne ñun solal bii. weex laa ji ko génnee. waaw eh, ñun ma di télé mu ñaare day bañ weex. Mm. Ah, nu ngeen ko xamee da ngeen faa dem ñun waa dañoo xam ne rek <laughs> télé bu solal weex ñaare da ngay sonal gars yi mu ne ah des nag ay techniciens yu qualifié fa ne. wallaahi moom am na loolu ñu lay diif di di la ko niir noonu. daal ba mu baax. ba mu gën a baax <laughs> di nuyu Pape Omar Dieng. Mhm. sama grand maa ngi koy nuyu bu baax. Baba mhm. <laughs> di ko ziar baax di nuyu téléspectateurs yëpp mhm. wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah ñu koy bu baax di ko ziar di ko kontaanee plateau macha allah day ànd ak diine jàngat waaye nag sa fit du dem parce que dina waxtaan ak yow kaf macha allah ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar Baba Ndiémé Biradam borom Tëngéej maa ngi lay nuyu. waaw Mbaye maa ngi lay eh, fay bu baax. Eh, maa ngi lay indil itam nuyoo waa Tëngéej. ndeysaan eh, di nuyu itam oustaz Alioune Mbaye. Mm-hmm. macha allah comme ni nga ko waxee rek. Mm-hmm. nekk koo xam ni réew mi yëpp ñoo koy déglu. Mm-hmm. parce que moom dafay joindre l'utile a l'agréable. tubaarkalla macha allah oustaz bu firi la. du génn diine benn yoon. waaye itam ku ne mën nga ko déglu. Mm-hmm. maa xam naa loolu tax sax foofu mu nekk njokk émission guddi bi nga xam ne day fanaan mu ngoog ndax émission bi fanaan eh, ah? mu gën a am temps ah, gars de ah, mu ci jaaxal boo demoon ba deux heures du parce que mm. dafa neex a partagel émission parce que émission tamit ki toog di ko def itam eh, bëggu rek ku koy déglu noonu parce que itam koo xam dafay pélloo ak moom mm-hmm. eh, kooku nag parce que biir ñooñu itam ku mën a def émission bi si yow sax a ngi mm-hmm. waaye bu ne dañ laa jéppe Euh, dana am lu am ci euh, auditeurs yi wala euh, téléspectateurs yi waaye da nga koy ñàkk parce que peut-être am nga comportement boo xam ne ñemewu la dëgg la mais moom ñëpp di ko yóbbantu ñoo ci sama sëriñ Oustaz Alioune Sall Alioune Sall ak Mbacke Sylla Mbacke Sylla professeur nga xam ni trio daal dañuy ñaan yàlla bala nga dem baaba hmm? jëmm ju baax ngi ne macha allah mbaay mi hmm. télévision yëpp mën naa ne émission bi mooy taaw. ci jigéen ñi toj télévision di waxtaan. am na ñu bari nañ roy nañ ko ci. kon tey bu doon du du kii lu ñu joxe droit de terre. mën nga mën ngaa mos dara. te def na ko personnalité ak yar. teggin kenn musul déggal mbay nga wax. dëgg la nguur gi nguur gi nag dañuy fàtte de. dëgg la waaw wax dëgg ah déet moom kay. dañu waroon dajale les présentatrices waxuma présentateur de. mais ci yéen la nag wala boog ci ñun la il faut ngeen am mbooloo il faut ngeen daje ci benn kuréel boo xam ne da koy formaliser nee naa leen association boobu duñ ko am parce que boobu boobaa bu ma bëggee yàq sa der du ma ko mën association lépp am moom def association des présentateurs wala des moo tax ci yàlla loolu ma jaaxal tax ci yàlla mbay ku mm-hmm. nekk ci réew amal réew ma njariñ mm-hmm. te ñu yor euh, nguur ga amul amul lu ñu yow benn njariñ ci yow la mm-hmm. parce que nguur kenn rek la faale dëgg la borom mbooloo ak borom kàddu Mm-hmm. ñooñu képp la nguur faale. xalaata kon il faut ngeen booloo. Mm-hmm. Euh, euh, euh, takk ci benn say. Mm-hmm. formalisé wu su ko defee di xàcceenoo di joronoo. nguur mën leen di fàttaliku ci lu bare bare bare bare. am na solo Baba Diémé. ñaata baaram laa woon. xanaa juróom. tey bu ma sukkoon ci bool bi. ba dagg supame. ak jën. yamal as ceeb. bu ma ko boolee nit ñi ko nii. day yomba yóbbu. lay dëgg la. waaye bu ñaar yi de dëgg la lay denke ñaar yi dëgg la. du sotti. du sotti day tasaaroo. Modou Lo moom ji ngëb kurpañ. Mm-hmm. yàgg wala Balla Gaye wala Bombardier mhm. su doon ñaar yi la lëngëm mhm. di la dóore ñaar yi dëgg la du dal te mu gaañu wallaay dëgg la kon force doole ji nii la meej ni tuy dëgg la li ngeen bëgg da la dëgg la waaye nag àndandoo ci parparloo moo bon mhm. lu bon lu mu bëri bëri bëri bu ngeen tegul ci dëgg da ngeen di daanu dëgg la waaye teg leen lépp mu am solo loolu gis ngeen ko macha allah nii rek la waxtaan ci biir kër ji ñëpp kenn ku ci nekk indi sa xalaat ba tax na rek ñu ngi taataan mbokk yi ci 88 628 14 13 wala su ko defee rek ñu mën a joxe seen participation ci li ñu indi tey li ñu indi tey nag doon lu sensible guddi yi ñu toll mu jafee waxtaane muy wàllu viol waaye nag euh, dafa am euh, cadre buñ ko jëlee viol yi nga xamante ni mooy am ci biir kër gi ñu koy nëpp nëppal euh, su ma bañul woon dara am naa ci ñaari élément yoo xamante ni seeni borom dañ ma ne waxtaane ko rek waaye nag bu ko dugal parce que boo ko dugalee rek dinañ xam kan la euh, doom ju góor ji nga xamante ni dañ ko joxe ci kër joxe ko kër ndijaayam mu watu mat waxambaane am lu mu commencé yëg mais bi muy commencé yëg loolu bi muy nekkee à basage ay dix ans onze ans douze ans yooyu ba jëm quinze ans am na lu ko jabaru ndijaay ji daan def loo parce que ndijaay ji dafa tukki. ku góor ku góor nga wax de. ku góor laa la wax. kon yow beneen forme viol nga indi. beneen form viol. góor gu jigéen fa ku góor ku jigéen violé mhm. te pourtant moom nee na buñ ko masaan ak bu masaan daw ba dellu kër yaayam mhm. du ñimee nettali mhm. li ko tante ji def parce que xamul loolu mais yaay ji day wut yat boole kook ndijaay jeneen ñu dóor a dóor dóor dóor ba muy bëgg a dee delloowaat ci kër kooku finalement mu dem ba am soxna tey fogo bañ ko daan fooye mhm. yàq ay siditam ba mënta satisfaire soxnaam mhm. mu doon lu metti muy benn mhm. bi ci des jigéen ji nga xamante ni dafa ànd ak boroom këram di wër di luye dem ba jékki-jékki xool doomam di ko raxas gis ne kanamu doomam dafa ubbeeku mu ni gànjang xam bi mu jógee jël doomam yóbbu hôpital sage femme bi ne ko effectivement sa doom ji dañ koy jéem a pénétrer dañ koy jéem a yàq mu ne ma nag moom xamul fan la. parce que fu mu dëkk fu ne mbooloo fay nekk. xamul fan la ñu yàqee doomam. thème boobu lu ñu bëgg jël waxtaanee ko ak mbokk yi. ak lu aajowoo ci viol. lan la ci charia wax. fan la ñuy waxee ne lii viol la. ku dem ba ñu violé la ndax tooñeel la am déet. incha allahu taala ànd koog mbokk yi Dieng Baba yaakaar naa ni ouverture baa ngoog. Euh, macha allah mbay nga am na am na solo. surtout ci cadre bi nga xam ni moom nga ko indee tey. Euh, bi ci bi nga njëkk indi nekk cas xam ni euh, doo bariwul lu muy am. xam naa ci histoire du diine moom oustaz Alioune Mbaye dina ci ñëw. violé góor violé góor ci yonent yàlla Yuusuf ak yooyu. Mm-hmm. xëy na bu dul foofu. Mm-hmm. bariwuñu luñ koy dégg. dëgg ni góor gi daal jigéen gi da koy doon jéem a violé. dëgg la li ci ëpp rek mooy góor toujours moom la ñuy jiiñ wala moom la ñuy tuumaal. Euh, ni moom mooy violé nga xam ni moo di euh, ku mhm. euh, beneen bi itam di xale bu tuuti boo xam ni mhm. dañ ko dañ ko dañ ko sàkku ci fekk bu mu nekkee ndaw foofu nag xam naa ne dinañ fa taxaw tuuti suñ dellusiwaatee mhm. parce que foofu sax dafa sensible lool xale yi dañu ñàkk protection ci ñoo xam ne dañu feebar Euh, te ngay dëkk ak ñoom mm-hmm. léeg-léeg sax ñu nekk ay mbokk yu jege mm-hmm. nekk jarbaat wala doom wala dëkkandoo wala dara mm-hmm. kii sax locataire la woon xëj na di bokk taseeg ay moroom am dëgg la am na ñoo xam ni seen nijaay seen mag seen jarbaat seen dara moom la ñu nekk ci biir kër gi ñoo koy def seen doom foofu nag xale bi nga xam ne moom innocent la euh, amul benn responsabilité euh, tey lii cër ki nga xam ne moom la ñu war a waxal mooy ki nga xam ni dañ ko dénk njaboot googu muy yaay wala muy papa farlu ak taxawaay ak seetlu bu mu war a mën a am ci doomam ba nga xam ne du àgg fenn fi waaye bu fekkee ni euh, euh, soxna Mbaye mhm. dañu wax rek euh, ci globalité mhm. li nga xam ne moom nga indi mu di viol muy viol dafa nekk lu yàgg mhm. yàgg na fi loo xam ne dafa yàgg parce que nag bu fekkee ni viol baatu tubaab la waaye dañ doon wax ni xale bi kat dañ ko siif wala xale bi kat dañ ko sàkku wala euh, xale bi kat dañu àgg ci kawam. Mhm. donte siif ak sàkku bi dafay jiitu parce que yooyu ay pexe lay doon. bu sottee nag mu àgg ci kawam. dëgg la ñun ñi dëkk Tëngéej. Mhm. Euh, dañ daan wax naan euh, kuy def loolu tey nëbbut tey ut pexe yoo ko defee ñu tudd la Ndoura mbay mhm. kaan kaan loo kaan loo nga jànge mu nga xam ni suñu jóge waan suñu quartier mm-hmm. di dem école ba ñuy jànge mm-hmm. daanaka ñàll wu sew la ñuy romb li ci des yëpp ay ay ay ay bés moo ko moo moo ko seq dëgg la danaan lëndëm mm-hmm. ba xale yu jigéen yi dañ daan tiit sax ba bu ñu wàccaan dañuy xaarante ba fente woy nduura bay génnal ba si bi lii jaru ko yaa ngi fàttali ko waaw lii day loola jaru ko c'est ça kon yooyu yëpp nekkoon ay luy wane ni est lu fi yàgg na fi yàgg fi yàgg la yàgg na fi waaye nag tey jii mu yaatu ñu koy waxtaane mu bari. mais dafa am lu jar a bàyyi xel. mooy gis nga anam ya mu daan amee. Hmm. na mu daan amee. Hmm. ak ca ña mu daan amee dafa taxu ñëw ci beneen anam. yow xam nga àll nga doon wax ak ñàll. ak ginnaaw école ak taatu léegi nag ci hôtel lay xewe très bien fa bëgg ñëw ngoo fa laa bëgg ñëw soxna May parce que gis nga viol ngoone nangu na la ba ba gis nga waaw xam nga ah. tàmm ngoone xam nga macha allah xam nga ak rajo beeg yooyu tubarkalla macha allah ku baax eh, Demba Yacine Sagor ku bu baax a baax bu sëñ uh-huh. eh, sama sang boobu nga xam moom dañuy bokk émission ba pare dëgg la mu ne yaay sama doomu bàjjen daa di yëkkati bari ni ma paasal dem noonu weer ne day fayeeku ma fayeeku mm. mais daanaka genn wàllu serem dinaa ci lekk lu bare bare noonu la ma samel Adji ndeysaan eh, Thiam Dogo koy ziar bu baax Euh, Soxna Mbaye waaw euh, gis nga dafa am ñett yoo xam ne dafay daje. Mm. ñu mën ni lii viol la. Mm-hmm. parce que tamit muy siif ak. Mm-hmm. muy sàkkoog muy yàkkataar nu mën a doon. Mm. da daan am ci mbetteel. Mm-hmm. da daan am ci wéetaay. da daan am itam ak force. loolu moo taxoon ba saa yu ñëwaat loolu am na rek. bu mm. tuumay jógaat jëm ci kenn rek. xel yëpp day daj ni. lii daal kuñ ko wax rek très souvent buñ jëmee ba ci biir rek yow la. yow la dëgg la parce que da daan am ci condition yooyu. yu yu yooyu yu daje yooyu. Mm-hmm. day am ci wéetaay. Mm-hmm. day am ci mbetteel. Mm-hmm. dafay am itam ci force. mais Oustaz Alioune xam nga li ma jaaxal ci viol bi yi ñuy waxtaanee jamono yii. moo ma jaaxal. day nekk viol yoo xam dañ koy tuddee viol. waaye wax dëgg yàlla ñett yëpp benn du ci am. du am ci wéetaay. kër gu ñëpp di daje am. du am ci mbetteel. dangay wax ni def na ma ko ñaari yoon ñetti yoon wala ñeenti yoon. wala sax léeg-léeg ma yëglu léeg mu yëglu ni mu ngi ñëw ma toog di ko xaar du am itam ci force parce que day day ak ki ñu ne day jol dafay ànd moom ca béréb boo xam ne ñëpp a nga fa wala da koy fekk ci këram. romb yaay romb papa ñu tëju séerum nekk taal seen cuuraay def la ñuy def ba mu génn dañ maa fa yale da koy booleeg nag jumbux aaw c'est ça down <laughs> doo amatul itam ci doole amatul itam ci doole hmm. parce que ba mu daan am ci doole taf gémmiñ da daan am voilà waaye léegi yu xóotunu yaay xaaral ko wax ñu ngi koy nuyu au passage dana dana li tax mu daan am ci doole hmm. mooy góor gi daan violé waaw daan ëpp doole jigéen hmm. te jigéen loo ko ëpp ëpp doole hmm. soo ko bëggee def loolu ko neexul ak lu mu ñàkk ñàkk doole am na ay tànkam am na ay loxoom am na ay gémmiñam dina tëgg gémmiñam ba ñëpp dégg ko viol yooyu ngay wax da daan ànd ak comprimé c'est ça sas Alioune mm-hmm. nga ñëw ñu xelil la boisson jox la nga naan nga nelaw parce que day dëggal li Baba Ndiémé di wax ne jigéen fa ay bagaasam nekk mm-hmm. boo ko bëggee forcer pour dem fa. Mhm. dafay fekk daf lay neex. Mhm. baara baarakallahu fiikum. Mhm. macha allah macha allah moom de waay euh, Baba Ndiémé sax li mu wax bu ñu ci yemoon rek. waaw na émission macha <laughs> allah. maa ngi door a xàmmee. Euh, euh, ca ca ca Thion. suñu jigéen Ngone Thion. ma sœur jumelle waaw suñu xarit boobu. ndeysaan moom nag dama ko mere ndax moom damaa gëj a woo. <laughs> dina la woo bu fi jógee dina la woo. <laughs> damaa gëj a woo. non man man mii maa lay woo maa Euh, waaye gis nga baat bi ngeen tudd viol. waaw tant que ñu ngi koy wax loolu du fi jóg. Mm-hmm. ndax baat bi dañu ko àbb tubaab yee ko moom. Mm-hmm. bu ñu ko tuddoon yekkataan. Mm-hmm. yekkataan ak siif. yooyu mooy li ñu moom. booba bo soo déggee baatu yëkkataan bi dina am effet bu mu def ci sa bopp. nga xam danger bi ci nekk. xam gàcce gi ci nekk. xam mbamba mi la ci topp. dëgg la. mais bu ñu abbee baat gis nga toujours Occident bu ñu bëggee rey. peuple mm. dañuy am baat yoo xam ne kenn du xam fu mu jëm ñu mm. ay démocratie. ay laïcité. ay xeeti baat yi nga xamante ni mën nga toog ba nga di baat bi lan la yaay dem ba mu neex la rek waa lii la mm. bu la arrangé nga du loxlu grossesse précoce wala yaa ngi dégg ay ay tubaab yu bees la daal baat yooyu moo ñu rey ba nu dee. dëgg la ndax nàmpunu ko xamuñu ko dañ koo jàng. Mm. genn wàll gi xam nañ ko te dégguñu ko genn wàll gi dégguñu ko. Mm. genn wàll gi loo loo ca doon. xamuñu ko. dëgg la waaye gis nga loolu lislaam woon nag bu yàgg. Mm-hmm. maanaam siif wala yekkataan. Mm. siif mooy saay saay boo xamante nii moom day xelam day dem ci loolu mu xemmeem la nga gis xale bi nekk ko précoce. mu siif ko wala bàyyi ba guddi mu ut fëgg sa néeg yekkataan la. Mm-hmm. yooyu saay saay ko daan def dëgg la foofu mos na dégg dama ki def lii saay saay moo tax mm-hmm. yow nit ki daan def rek daan xam ne lii su ma ko defee lan lañ may tuddee ci penc mi mm-hmm. waaye viol loolu kooku beneen affaire la mm-hmm. waaw euh, dañuy wax viol mais booy xool viol bi sax du du dara ndax ki koy def bu fekkee da ngay violé da deret génnul yuuxuwul amul benn coow bu la ci topp. Mm-hmm. man gis naa ko ñu violé koo xamante ba ñu porté plainte waa ji ñu ñu ñu ñu indi plainte ba. Mm-hmm. ba mbokki waa ji demee kër kër xale bi ñu violé. dañ ko fekk mu sumb fóot waaw kooku ana viol ba. waaw si si mën na am viol mën na am viol bu fekkee ne bu fekkee oustaz. Hmm. li ñuy tuddee viol rek. Euh, ci wàllu euh, yoon yoonu réew. waaw xam nga viol yàkkataan xam nga waaw waaw yàkkataan mais xam nga mën nañ sax comme baat bi la ñuy gën a miin. Hmm. mën nañ sax indi benn baat boo xam ni. Hmm. dañ koy méngale ak yàkkataan. dañ koy méngale ak siif. waaye ñu ñu a tekki viol ci tubaab. parce que viol li muy tekki rek mooy ku xët. aw aw aw ña ab ñàkk. maanaam def loo nit ki lu ko lu mu bëggul. waa très bien maanaam ma maanaam xaaral ma wax expliquer mu gën a leer xam nga tey viol di nga ko dégg ci leneen lu diggante góor ak jigéen. waaw violation des lois di ngay ñu ñoo dañuy hmm. da nga dégg ñu ne kii dañu violer loi. Hmm. kon violer li muy tekki mooy. Hmm. koo xam ne loo xam ne dañ ko teg mu di ab ñàkk. ni fii bu ko kenn bët yow nga am doole wala nga am ay pexe ba xët ko. xam nga xam nga loolu loolu ba tey yaa ngi yaa ngi wut. noo ko fi xam nga xëtt xëtt sart. violer loi violence domicile mm-hmm. yooyu yëpp yaa ngi ab prix mm-hmm. mais boo ko jëmee ci jigéen mu yàkkataan lay tudd mm-hmm. bu baax bu ko defee baat bi ci tàmbali bu ko defee mu gën a garaaw mu gën a garaaw <laughs> c'est-à-dire que bu boo ko woyefalee eh. xale bii dégg violence tur wu ñaaw tur wu ñaaw wala tur wu ñaaw wala bu ñu ko joxee rek dana tax nit ki jooma koo def. ñu mën a tiit waaye nit ki tiit déggoo turu Ndoura Mbaye. waaw Ndoura Mbaye Ndoura Mbaye ñaanu trop. da ngeen wax léegi Ndoura Mbaye Imam Omar Seck dama yàgg di ànd mu def émission. <laughs> bu bari bu bari waaw lébu la baatu su ñu waxee mu indi baatu Ndoura man Imam lu Ndoura Mbaye mu ne ma dinaa la ko fi. baatu lébu mooy loolu la de 17 ans <laughs> maa ngi door a xam ne moom indi naa la ko tey rek. <laughs> tey inspiré nga ma ko. parce que lébu yi ñoo koy wax. waaw dëgg la moo ñu daan dar nit ñi ci ci oto yeeg kaar yeeg yooyu. bu dee uh-huh. bu dee yekkataan. waaw. yooyu junj nga léegi yonent yàlla Yusufa uh-huh. alayha salaam. Mm-hmm. jigéen gu am personnalité. Mm-hmm. di jabaru buur mm-hmm. première dame. moo demoon ba sentir loolu ci surga kilifa gi. feebarul de. dafa gis lu ko lu ko ëpp doole. mais moom sax elle a été ndax biñ demee ba coow li jeex nee na xas-xasal xaq ana raawatu wa nafsi. dëgg dëgg ay la yéwén maa ko doon sàkk. bi coow li demee ba dëgg dëgg. dafa ne ay la yéwén. violation ak accusation hmm. ñaar yooyu ci jamono day am hmm. ki ngay violer da fekk mu tëdd hmm. ki ngay yëkkataan dañuy fekk mu tëdd victime boobu muy doon ci lañ koy jële yóbbu hôpital wala ñu woo ay mag ñu xool ni kii def nañ ko lii peine bi lii la ci mais li nga ne eh, li wolof di nga yëkkataan muy ngoli tànk mhm. xam nga loolu mënatul nekk yëkkataan mhm. mënatul nekk eh, kii mhm. ba pare nag boo paree taxaw ci réseaux sociaux yi ne fang ah, ne bind naa sama plainte daf ma yëkkataan tu vois xam nga yooyu yooyu yëpp nag dafa am tort partagé boo xamante ne da ci am bu dee ci violation xale yi xale bu ndaw bi nekk bi nga kaa bi nga nante léegi waaw kooku xale bi dañu doy waar dañu ko jaay cest kooku deful dara ay waajuram ñoo fay seen mission doom ju góor noo koy jëlee mu dem wër ki commencé na majeur nga bàyyi ko ci kër yumpaañ war a kër tantam mm-hmm. ñoom ñaar jong ñu bokk faa nekk nit da waaye nañ ne yumpaañ seexlu na kii yaakaar laay bàyyi ko bañ ko wax mm-hmm. l'islam xam nga xam nga lan la wax kaay ma wax la fiiraange l'islam fan la tàmbale ba ci néew bu jigéen bi boo ko day julee bul taxaw ci tànk yi bul taxaw ci yélee ca mbagg ngay taxaw mm-hmm. ca côté boobu ba di kaabar naan allah akbar. lislaam a ñu jëkk a fiir kon. ki ki dee ba noppi. maam maam El Hadj Malick Sy maam nee na. waaw ñaar daal laa xaw a bu fekk xaw xaw. Mm. ne laa xaw a wóolu. waaw wasin wu yees peq. ak njulli bu bees tàq bu fekkee wóolu am na ñooñu laa xaw. wax na dëgg. njulli bu bees tàq ak wasin wu yees tàq. Mm. nee na daal bu fekkee am naa ci ñu may wóolu ci góor a jigéen loolu mm. la. lislaam dafa dafa aar lool bu yàgg. góor boo xasee ba am ñaari at ñetti at sa rakk yeeg seen a nga bokk ci biir néeg dañu commencé sa tàqalikoo mais nekkee ay liir da ngay solo ko góor ki mbubb mu dëll ba pare mm-hmm. ngemb ko mm-hmm. kee nga solo ko yëre bu dëll ba pare nga ngemb ko mm-hmm. boppam jëm le bopp ki jëm ci ay liir laa wax bu dee ay seex toujours di di def nii loolu dafa am lu muy lu muy def ci ay xol. Mm-hmm. Mm-hmm. dañ dindi. jegeñoo bi jegeñoo mm-hmm. boo demee ba commencé nekk aat bul nangooti ko nag séeréer. je t'aime ak kii moom la ah. may may nangam nangam. di tungóom ak di boot ak di uuf. surtout eh, yooyu eh, eh, yooyu yëpp baaba njéeme uuf bi laay bañ mm-hmm. man am na ku daan dugg sama kër naan sama doom benn bu jigéen laa am di ma koy souhaité sax euh, joyeux anniversaire <laughs> ah. euh, aji ndey seen bu jéen onze ans am lay fêté tey ji joyeux anniversaire euh, bu duggee ne ko séeri ndax sama jabar yoon yàlla la ma woo ko ba mu ñëw <laughs> ne ko bu mu amati bu ko waxati bul ma tàmbalal kii séeri mm-hmm. aw ma ci kersa. xam nga te yooyu la def ci sa kër gi ñaar fukk nangam sangam yëkkatital tàmmal sa doom loo xamante ni finalement euh, euh, doo comprendre. mooy indi yi xam nga Soxna Mbaye moom la oustaz Alioune mbay di wax léegi. waaw eh, ni xale yooyu dañ leen a jaay. dañ eh, leen jaay gis nga lu leer mais góor moom sax sa xel du ci sax far ñaaw. bu dee góor la waaw d'accord mais xam nga ak lu mu ci mën a doon rek ak lu mu ci mën a doon rek. Mm. xale dafa nekk sous la protection de ses parents. dëgg la euh, pour ñu indi kaaw xale bu jigéen bii. Mm-hmm. man toujours bu jot dama koy dénoncer. Oh. dama koy dénoncer maintenant nañuy mënuñoo xàmmee ñi bëgg xale. Mm-hmm. ak ñi bëgg fowee xale ci ñi ci ñiy fab xale. Eh, Baba mënuñu leen a xàmmee. baaba Ndiémé. ñi bëgg xale. gis nga ak ñi bëgg a fowee waaw kenn leen a ci ñiy fab xale. Baba Ndiémé. Uh-huh. nga góor. Uh-huh. dafa am lu ko yàlla mooñee noo xam ne nii. Mm. mu jigéen yàlla rek aka xam. Uh-huh. moo tax mu ni soriyanto la. baa'idu bayna anfas rijaali wa nisaa yi. nooy góor yeeg nooy jigéen ñi nañu soriyantoo. Mm-hmm. sunu borom xam na lépp. nañu nañu bu bu bu def tabarruj am na yoo xam ne waroo mm-hmm. am na yoo xam ne provocation la ci kër. Mm-hmm. boo nekkee xale bu jigéen toll ci sëqalu. Mm-hmm. commencé gis baax. say ween commencé génn ñu ko commencé doon jigéen jamono boobu da ngay defee ne lu doon wàcc. dëgg la ne nii mu taxaw mu taxaw. mooy puberté yow yéen xam ngeen loolu. gu xale bu góor bu commencé ba gis ba commencé gént. commencé gis loolu defe na lépp moo ko man mbokk ngi noonu ci ligne bi subaana man ndijaay ji ci kër gi sax sikkim ba mu am bi jaaw te bàyyiwul borom sept ans yi ah, ah. yooyu dinañ ci wax mbokk allo asalaamaaleykum waaleykum wa rahmatullah mbaa defuloo dara sant yàlla bu wér soxna si tur bi naka fooy woote maa ngi ootee Gambi Gambi maa ngi nuyu waa Gambi yëpp di rafetlu seen programme bi bu baax baax merci beaucoup di bu baax waaw kooku du yaay ministère <laughs> namm la torop Dieng Sala maa raw maa defuloo dara. sama xarit sama doomu nday yow kay xam nga ne fi mu ne defuma dara. wallaay ana suma turandoo. <laughs> <laughs> may Saint Valentin nii. waaw waaw. ayca bisimilah Dieng Dieng Sala. ni ma bëggoon ci waxtaan bi. waaw. ci waxtaan yi yàkkataan bi ñuy wax fii. Mbayang. Mm-hmm. waaw. adduna bi dafa yàqu. yàquwul ndànk yëkkatil kàddu gi. ma àdduna bi dafa yàqu. dëgg la. doomu aadama yi yàqu. Mm-hmm. doomu adama yi ñemeen yàlla. Mm-hmm. doomu aadama yi xalaatuñu bàmmeel ëllëg. wallahi te allah kulli aali dañoo dee. billaahi wallahi taala fala budda yàlla na yéex. dañu dee te billaahi suñu deewee. Mm-hmm. lépp loo moom lañ jëf ci àdduna. Mm-hmm. moom la gis keroog yow mal qiyaam. dëgg la nit ñi nañ gëm ne. tubaab yi sax la yàlla waxoon ne dinaa leen dëkkal ëllëg laaj leen ku ne la nga defoon. tubaab dëkkal na ko ci lan. tey man mii di wax ci tele bi mm. bés bu ma deeyee dañuy may teg ci tele bi may wax ku xamul ne deenaa mu foog ne maa ngi dund te deenaa dëgg la kon tubaab wane na dekkal ba pare la yàlla wax tubaab wane na dekkal ba pare wallahi azim mm. tubaab wan nañu ne yàlla lam wax dëgg la mm. dëgg la dekkal doomu moom tubaab nga dee ba ñu teg la ci tele ngay wax kon yàlla kon tey tubaab jox nañu misaal ba yàlla wax dëgg la wallahi dëgg la kon nañ leen bàyyi suñu xel taragal yàlla mm-hmm. te xam ne bindee si at yi ku xamoon kañ la. doo sonn waaye kenn xamul ndax ëllëg la wala tey la wala ëllëg la. dëgg la. mbayang xalel lañ daan yëkkataan xalel. Mhm. Mhm. xalel ci biir kër dolloo ci ñetti at ñeenti at ba juróomi at jëm fukk moom lañ daan yëkkataan. dëgg la. xale bu am fukki at ak juróom sax kenn mënu koo yëkkataan fi ñu toll nii. wallaahi azim. ndax boo koy teg sa loxo rek mu yenu loxoom ya yuuxu. dëgg la wala ba ñëpp dégg ko ñëw te am ne lan la ci biir nii. dëgg la bu ko bëggul. Mhm. soo yëkkataan nag da nga koy fekk ci biir néeg bu mu nekk moom rek kenn nekku fa nga tëj bunta ba pare koo yëkkataan waaye ñi ci di dinañ dégg kàddu mu yëpp. Mm. dëgg la. day dégg kàddu mu yëpp. Mm-hmm. mag xanaa da ngeen di waxante ba d'accord. Oh. ngeen nekkal mm-hmm. nga bëgg ca dara ngeen ko ca. Mm-hmm. dem la nag soo ëlbati def la nga bugg a def wala nga wax la nga bugg a wax. dëgg la. te damay wax ne. Mm. adduna si kilifa yi nañu jóg di wax ca teel. Mm. te bàyyi ba mu nga xam ne. béy way na muus ñuy soog a wax. ñu topp cay wax. waaw kilifa dafay teel a jóg. dëgg la mm-hmm. teel a wax. Mm-hmm. dëgg la teel a feet njabootam. Mm-hmm. teel a defar. di am ba pare nga jóg di wax. am na solo. te àdduna si ñu ngi koy bëgg a yàq te yàlla yàqu ko. yàlla ngi bàyyi ku nekk ak sa sago. wallaahi azim. ku nekk ngay def lu la xam ne neexut yàlla te yàlla nga la ci bàyyi. te mënul laa ko ñibbi ci gu nar a kàmm te ku ñëwut la. dëgg la moom yàlla suñu borom bi. dëgg la walaay dëgg la kon doomu aadama yi nañ ormalante nañ ormalante. Mm-hmm. te bàyyiwante xel. Mm. te xam ne bu ñu xoolee ñi dee barki dee moo njaay. tey seen réew moomu ñu ngi naan fukki nit ñeent ñeent dee nañ fukki nit ak ñaar dee nañ kana xam ndax ñu bokk ci ñun. Mm. wallaahi. te bu ñu dee ba pare mënatuñoo wax nit baalaw na ak ade. déedéet. te doomu aadama war ngaa bàyyi sa xel. wallaahi doomu aadama bu toog ba diggu guddi. Mm. mu jóg ci la ay rangoñam di jooy. te ka ko teg naqar xam na ne lii mu ko teg tegu ko ko ci yoon. Mm. nit toog ci biir ndegam di jooy. Mm. yow nga toog di nelaw nit war na ko bàyyi xel. am na solo dañ bàyyi xel jooyloo aadama yi. Mm. mi fi ne mu yàlla ngi bàyyi ci lu ñu neex mayal. Mm-hmm. waaye kii jooyloo suñu morom. nañ ci bàyyi xel. am na solo te nit war ngaa xalaat ëllëg te nit war ngaa defar sa der. am na solo yëkkataan xaleel lañ daan yëkkataan mag da ngay d'accord ñu nekkal ko ci def lu ñu neex mm-hmm. bu ñu neexee nag ëllëg nga xëy suba ne dañ ma violé dañ ma def nangam waaye mayal nañ defaraat te kilifa yi nañ jóg maa ngi ñaan ngir yàlla ak yonent bi maa ngi koy ñaan ci darajay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kilifa Sénégal nañu jóg gaaw nañu jóg nañu jóg ñun Gambien lañ waaye Sénégal bu amee lu ko naqari Gambie am lu ko naqari. wallaahi Sénégal bu amee lu ko neex Gambie am lu ko neex. yow Sénégambien nga ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi benn bopp lañ. dëgg la waaye nañu jóg waay nañu jóg waay maa ko ñaan ci darajay Muhammad nañu jóg nañu wax nañu jóg nañu wax. am na solo nañu jóg nañu wax balaa muy yàqu waaye balaa muy yàqu yàqu bi baaxut. ndeysaan nañu jóg nañu wax waay. li neexut nañu jóg nañu wax. yaram waa daw ndeysaan macha allah macha allah fa tabarakallahu aji ndey Seynabou Dieng yaayu ministère mm-hmm. média la nekk comme ñun nii ci mm-hmm. télévision mm-hmm. mais bari na teraanga ju ñu am Gàmbi yàlla ak jëmmam la bu ñu nee cëpp këram la ñuy wàcc aéroport la ñuy jël yóbbu këram teraanga bu ne ñu defal ñu ko yar ak njabootam nag macha allah fa tabarakallahu wax na dëgg nañu jóg te wax ñu ngi wax nag waaye na xamuñu yëf yi lan la dëgg la macha allah soxna Mbaye euh, ñëwal ñëwal euh, problème yëpp weñ gaa ngi bona ca mbànja xaan mi mhm. bala maa gëm ni daañu régler dara te lislaam bokk ci dana yàgg mhm. foofu la nekk bala maa gëm ni lislaam moom dañu koy teg koom kuddu rek mhm. tazaruha kal muallaq l'islam daal l'islam yi tabaski la mm-hmm. nga jënd xarum tabaski xotti sa jasneer ànd sa doom mm-hmm. julli ji mm-hmm. ba l'islam yi aj màkka bala bu fekkee ci loolu la ñu fas yéeneen te l'islam du ñu atte l'islam du ñu ko déglu du ñu ko atte l'islam solution la l'islam am na bépp question réponse am am na ko dëgg la oustaz loolu kan mooy responsable bi kii responsable mooy état ah bon oui état kese état non sëriñ si non ñoom boole wuñ leen ci dara de. non wax naa leen ne leen dinaa def fii émission. xaaral ma wax la lu tax ma wax loolu. waaw sëriñ si la man mooy ñeleen gëm te topp ci ñoom ñu nga di wax dañu leen di wax mm. xam nga di am ko yox na la sëriñ si wax sëriñ si ñoomay wax ak ñu war a di déglu ñu leen di waxal mënoo nekk fi ne yilif sa bopp nag dem ba sa lox gane gémmiñ nga naan na sëriñ bi wax fu sa lu muy wax mm-hmm. <laughs> sëriñ bi kay dem war wax man kay wax mais mais Oustaz Aliou mm. mais Oustaz xamul tam ma posé rek question bi mm. kan mooy responsable nga demee état waaw euh, nañ waxante dëgg. Mhm. république la ñu nekk léegi. Mhm. ku def république nguur kenn doonatu ko. ku def république waaw waaw dina dina dina ñëw après. mais dama wax ni doonante nguur amatul. Mhm. dañoo nekk ci république. république dafay juddoo ci ay élection gannaaw bu fekkee ne indi nañ ay démocratie ak yooyu. nel kooku allo. waaw allo <laughs> allo. xam naa daal génn. allo. moo génn allo. waaw noonu mu ngi ci biir salaamaaleykum. allo. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si ñu ngi lay ziar maaleykum maa ngi lay maa ngi delloo ziar dafa mel ni sama baatu mère ñang la de. ah jeex na tàkk xam nga ko ko macha allah ku ma bëgg te miin ma lool macha allah moo tax. mère ñang fu mu nekk te gisewuñu Maris Maris. Mhm. sama yaaya. ay ca mère ñang bisimilah yow rek la ñuy déglu yaay da ñang ku baax lool mag mu toog benn place yor kurusam rek nag macha allah di ñu ñaanal allo salaamaaleykum. aleykum salaam. yaa booy ay ci yow rek la ñuy déglu ñan. mais maa ngi lay fay waay caam. maa ngi lay nuyu bu baax. mais tey xam nga lu ba dal. waaw. da ngaa da ngaa invité tey sama doom sama xarit. ndeysaan. ndeysaan. borom son boobu. waaw Oustaz Aliou Mbaye ndeysaan. borom boobu da ko invité mooy sama xarit. wallaahi mhm. yaa booy yaa booy wallaahi a baax. moo tax may wala wala ma xam say sama ñaari xarit jàkkaarloo na ak ñoom. ndeysaan alhamdulilah ñang ak sama benn doom bu nekk sa wet. ndeysaan Dieng Baba. Dieng <laughs> Baba may sant yàlla sant yàlla. nee na dina lay indaaleel ceeb ak jengeen ñangeen. <laughs> sant bi dara du yàq ñangeen <laughs> ak ak mbayeen boobu to ak ay boobu to. ndeysaan ndeysaan ñang da ngeen di ñaar ñu ko xam ne da ngeen di ñaar sa wax yoo xam ne daal yàlla ma yàlla ma leen bëggloo sama xol. loolu loolu xam naa ci dara. ak baax aw ma dara nag lu may wax waaye dama tey damaa kontaan rek. moo tax ma woote kontaan naa yaa booy. jërëjëf yaa booy nin ma aram. yal na ngeen fi yàgg bi rek. amiin na yàlla def ci réew mi dal def ci réew mi ci balaa di wax sax aw ma ci benn solo ndax ndax jamono dëgg la jamono bi léegi dafa ëlbatiku mm. mag di wax sax dañ naan mag bi dafa dof moo tax dëgg la moo tax léegi wallaay dëgg la kenn xoolatul seen maa ngi leen sant bu baax di sant samay waajur ndeysaan mag mu ci wax léegi sax dañ naan mag mi dafa ñàkk fay daw la dafa dof kon léegi kay mag day classé day classé rek wallaay wax nga dëgg wax nga dëgg ñang loolu loolu loolu day classé rek toog jàpp jàpp da waaye nag mm. yéen moom da ngeen di samay ñett yéen ñett ñooñu toog daal maa ngi leen di ñaanal ñaan taxawaay bi yal na yàgg ñaanal gudd fan gu ànd ak ah, wér ah, ah, soxna soxna man daal bokk naa ci doom yi léegi déglu naa ko biig nag ko déglu naa ko biig tara déglu naa ko dégg naa ay kàddoom rafet a rafet a rafet mbay jërëjëf na taxawaay bi yàgg mbay waaw Mbaye jërëjëf Thiam. yaay après dinañ déggante ci bu sew bi bu may génn la woo kontaan nañu bu baax. ndeysaan ñoo gën a yaay bu jógee ci yow rek nga rëkkile. dëgg la yaay. waaw yaay bu jógee ci yow rek nga rëkkile. su doon ñu bëgg yaay wallaahi jërëjëf Thiam yal na nga suuf si ay fan te dese barke bi. allahumma amiin ñaan comme la féete woon yal na la fa sum yàlla féete. allahumma amiin allahumma amiin ñu koy a baax a baax mère ñaan mosuñu tegante ba mais euh, lu yàgg ñu ngi ci euh, euh, téléphone bi looy def social mu dugal ci loxoom dugal ci loxoom ak njabootam dugal ci loxoom mbokk ngi noonu ñu jëlaat ko allo voilà ñu xaarandi ko waat da mu wax lu am solo mhm. yaay mhm. bu xësee ba génn ci yow rek euh, dafay dafay metti lool góor mhm. góorgóorlu rek a fi nekk di liggéey si waaye ba léegi gëmuñu sax ne dinañ ko mës a fàtte ndax fa mu ñu féete woon ndax Saliou Khoule maa koy nuyu au passage dafay wax lu am solo lu waaye jëndee sa ndey sa ndey ku gën euh, jëndewuñu dara suñu ndey waaye nag euh, sant yàlla daal mbokk allo allo d'accord ok merci beaucoup kooku day baatu musli faal la. <laughs> waaw xam nga baat yi. <laughs> <laughs> dégg laa dégg. waa Mbaye waa man la. yee kontaan naam. waaw mais Mbaye Mbaye loolu laa tey doog a ñëw. dama dugal ko ci antenne bi. en direct sur le. ça va. ça baax Fall. sant yàlla bu baax te di la ñaanal kontaan nañu. ndeysaan ñoo gën a kontaan. sañse bi rafet na. tey def naa tout pour dugg chaque samedi damay essayé du mun dugg. Saint-Valentin euh, mais tey moom mun naa dugg. <laughs> ñu ngi leen di ñaanal. ndeysaan amiin di kontaan. jërëjëf Fall. waaw loolu moom am naa mbégte trop dugg tey. naka naka waa les amis de Harouna Dia. ñoom ñëpp ñu ngi lay nuyu. du ma ci lim kenn waaye bu ma tegee nuyoo bi sa loxo rek mel na ni yegg na ci ñëpp macha allah. waaw ñoom ñëpp ñu ngi lay nuyu nag. mais so soxna Moussa man sama goro lay laaj sama goro lay laaj anamu. <laughs> tey li may ree ba mu jeex jël naa nuyoo les amis de Arona Dia jox leen ko. Mm. ndeysaan képp bokk rek jël naa nuyoo bi la ñu ngi lay fay bu baax. aha kontaan naa trop. mais fi nekk nii nag moo du mën yàgg parce que xam nga man wax bi moom mooy loolu. <laughs> moo ma jaaxal moo tax mu jaaxal alhamdulilah moo ma jaaxal te émission bi am na fàttali <laughs> d'accord maa ngi leen di bàyyi foofu la. jërëjëf jërëjëf jërë jëf Mbaye merci beaucoup merci beaucoup à tout suite incha allah. macha allah munu ci dara de lii mu def nii Dieng Baba <laughs> moo tax ma jaaxle ci biir groupe bi sax munu ko ci <laughs> waaye nag euh, daf ñu jiite jiite groupe les amis de Harouna Dia bëgg ñu moom moo tax mu def lii yàlla xam na ko jox ñu cër moo tax mu def lii yàlla na yàlla yokk cëram yokk ay garaatam te yàlla jox ko lu muy joxe ndax lu koy jox yàlla jox lu ne rek bokk na ko euh, gaa yi ba ci man mii walaay dëgg walaay dëgg ah, barki yonent bi yoru rab ba bañu ñeeño de déedéet xam nga xam nga soxna soxna euh, musli mhm. dafa nekk nit koo xam ni dafa jafe ci nit ñi mhm. Euh, parce que Mously dafa nekk dafa yaru euh, ba pare euh, am teraanga. Mhm. teraanga ji bëggu ci dara. bewul bewul. Mhm. réyul réewul. déedéet. fa mu nekk ca Italie bés boo doxee ba dajeek ku dajeek Mously ku dëkk ak sax bu la jàppalee Mously ci ngay gën a xam kan mooy Mously. sutura saa ma gën a neex ci moom. très bien lu mu jëfanteeg yow nag su génnee. yow yaa ko génne te bés boo ko génnee sax am lu baree bari loo wàññeeku ci moom ndax bëggul loolu xam nga lu tax sutura si neex ma ci moom mhm. boppam la jëkk a suturaal wallaahi dëgg la mënoon naa nekk ci groupe bi te tudd madame diw dëgg la xaw ma santu jëkkëram mës naa koo dégg dëgg la du wax ci boppam du wax ci njabootam. man nag sama goro la man nag jëkkëram sama goro la comme sama goro la moom. Hmm. waaw <laughs> du wax ci boppam du wax ci njabootam. déedéet déedéet li muy wax rek luy jëmee groupe bi kanam. moom ak ñoom maam Yacine ñoom Yaxam ah. euh, ñoom Mati Thiaw. ñi nga xamante ni Adja Suwaadu Diop. Adja Suwaadu Ayda euh, ak la chérifienne. jaari ay dara nekk fële ci Belgique. wallaay allah ñoom ñoo ñu ko composé daal dañ leen di ñaanal yàlla jàmm. Eh, ndax xam nga ne bu ko waxee war naa mën a nekk maak yow. lu baax a baax a baax waaw góore yow ma boole ci groupe <laughs> yow lu baax yow euh, yow yow fu baax fu may xam fu may dem yóbbaale la. Cheikh Ahmed Tidiane Niane. Euh, euh, vraiment. kenn ngi noonu ci ligne bi jël ko. allo. allo. asalaamaaleykum. salaam. Mhm. na ngeen def. ma sant bu baax alhamdulilah. maa ngi leen siyaar baax di leen kontaan di leen di leen lu baax a baax a baax. Mhm. ndeysaan merci beaucoup. maa ngi leen siyaar nag di kontaan ci yéen di rafetlu émission bu baax. jërëjëf tur bi naka laa ak fooy wootee. Xaadim Gueye Touba. Xaadim Gueye depuis Touba. ah mm-hmm. Xaadim borom màggal gi yow. Xaadim ñoo ngi lay ziar. dëgg la loolu am na Xaadim xanaa ci sa oote bi da lay jaar eh, ndokkeel jullit yi ndokkeel waa Touba yëpp. Ah. Eh, ci weeru eh, benn fanu rajab bi nga xam ni. Mm. moo di bésu jullit yi itam nag di bésu Serigne Fallou. Mm-hmm. ñoo ngi ci mm-hmm. ndokkeel bu baax a baax a baax. dëgg ay ca Xaadim sa participation jërëjëf waay ñoo gën a kontaan jërëjëf waaye viol yi ngay wax. Mhm. waaw. am na de waaye bari na viol yoo xamante ni dañ ko tuddee viol waaye waaye amut. wallaay du fi mhm. dañ ko créé. ndax dafa am solo ñoo xamante nii man gis naa sama benn xarit boo xamante nii. Mhm. dafa amoon koo xamante nii ab xale bu ndaw la mais gelam la. oh. oh. ñu ngi koy xaarandi waat euh, sëñ Xaadim Guèye wootee foofu di diwaanu Touba. Mm-hmm. Euh, di nuyu bu baax a baax Ndiaye Teranga ma nga foofu ca Touba xu dos Euh, cousin la ci euh, Ndeye faatu Ndiaye bu Serigne Fallou euh, nekk fële ca yi ma koy nuy bu baax a baax di kontaan ci moom borom ci bi baax yi ci man kontaan ci yaayam itam mère Ndiaye dëkk fële ca Samsam 3 Ndiaye Teranga borom boutique bi cuuraay yu baax yeeg ñoom seen waatu baa Darou Khoudoss yëpp nañu waaxu ba foofu macha allah incha allah dinañ fa am yu neex a neex fan nañu toll woon waaw maa ngi toll ak Oustaz Alioune Mbaye mm. ci ni responsabilité bi tax ba jiitaluñu diine ci suñu mbir yëpp mm. ñun Sénégal yi ñun borom kër yi ñun famille Sénégal yi si kenn ëppuñ ci responsabilité ci sama xalaat parce que dama jàpp ni am na loo xam ni kenn mënuñu ko forcer mhm. euh, am na loo xam ne nag nguur moo yore kàddu moo yore doole mhm. mën nañu wax ni nii laa ko bëgg nii laa ko tërale dëgg la waaye comme ñun nguur ñoo ko fi teg Oustaz Alioune Mbaye fenn rek la laa la interpellé mhm. saa yi ñu demande élection lu ci bëree bëri waaw dana ci am benn candidat boo xam ne wóor na ni kii su faloo diine islam jëm ca kanam kenn du ko wootee du am mbooloo. du am tur kenn du ko wote. déedéet. <laughs> kon nag la yàlla waxoon moo dul. benn ci Oustaz Alioune Sall réew mu ne nañu mel réew mu ne nañu mel. Mm-hmm. réew mu mm-hmm. yàlla day tànn kenn ku mel ni ñoom. Mm-hmm. mu jiite leen di leen def loolu te duñ ko mën dara. c'est ça xam nga bu yow boole nga bi maanaam benn bal bu jamono ñaari picc. voilà ci yëpp. voilà sori yow wuñu. foofu nga daaneel sax laa jëlee. wax la ni la réew mu nekk ñooy far seen seen njiit. voilà bari na baaraam yu jox yi jëm présidentiel. wala jëm ci palais wala jëm ci njiitu réew benn baarama fa jëm waaye juróoma jëm ci yow ndax réew mu nekk nañu mel rek njiit loolu la ñuy am mhm. boo gisee man la boo baadool du yar moroomam mhm. Mhm. Hmm? responsable nga waaye état day yuutu sa responsabilité di la ko xañ droit de l'enfant mooy lan droit de la femme mooy lan oustaz doguma la euh, corona bi ndimbal yi ñuy jox euh, fecckat yeeg taasukat yeeg yooyu eh, bokk am ngeen ci. ñun dañoo bokk ci réew mi ñun boolewul nit yi de. <laughs> waaw baax na dama point d'interrogation boolewul nit sax parce que dafa nekk sama thème mu semaine prochaine. premièrement premièrement daara et corona. ba nuy jëkk ba ñuy jëkk di concerté. Mm-hmm. déggoo benn oustaz mbaa benn imam bu ñu ci ah man de dégguma ko. dëgg la. te nag yaakaaruma ni rappeurs yi yeeg waykat yi amuma dara lu ma leen contre nag ndax seen seen yoon lañu ne ñun ñu nekk suñu yoon waaye gisuma ne am nañu njëriñ bu nu amul ñun bu war a mën tax ñu considérer leen considérer ba lu xew réew mu soxla muy lu fulla lu ñu war a bokk war ko péncoo ñu war leen ca woo ñun duñu ca war a woo xaw ma nag li ñuy bindee ndey joor te ñoom ñu bindee càmmoñ ndax xaw ma conseil yi la xaw ma nu fa demee nii wala luwaay tubaab tubaab ko jël te mbokk ngi noonu euh, thème bu doy waar bu neex boo xamante ni bu ñu sañoon am ci deux heures de temps mbokk asalaamaaleykum. salaamaaleykum ajaratu. Euh, sëñ bi ñu ngi lay ziar. ñu ngi leen di ziar wér tur bi ak fooy wootee. El Hadj Ndiaye Ndakaaru. El Hadj Ndiaye. Mhm. sunu bos. <laughs> mooy borom kër gi. <laughs> bëgg naa man ni moom de. ah kon ayca bisimilah. <laughs> kooku de référence la moom. ndeysaan ndeysaan. ñu ngi leen di ñu ngi leen di jëfal bu baax waaye. merci beaucoup El di jàng ci yéen lu bëree bëri. jërëjëf. di gërëm boo koy feggoog yow ci sa ndeyjoor. ndeysaan. ndeysaan di sant bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf El Hadj ñu ngi lay ziar ba El allah. Mhm. barak la fi ak sa naataangoo boobu tamit. ndeysaan Pa Omar Dieng. ndeysaan sama chroniqueur. Baba Ndiémé. yàlla yàlla defal jàmm. amin waaw. Ndiaye naa dafa am xam ne moom bëggoon na laajte ay ca yëkkatil kàddu gi ci kaw. benn bi viol moom affaire tubaab la. Mm-hmm. Oh. viol moom tubaab la defe naa. viol. waaw mais mais léegi njaaloo ma koy laaj oustaz bi. Mm-hmm. léegi ñaari dama bëggoon ñu expliquer ma ko. Mm-hmm. viol benn bi euh, tubaab la quoi viol. Mm. maanaam ku nu ku nu forcé. mais njaaloo bi moom bon ci benn cas dañ koy mel ni dañ naan njaaloo bi la ñuy wax viol. Mm. waaye ñaari yi daal laa bëggoon a leerlu rek. Mm. oustaz dégg nga fi muy laajee. waaw ngeen expliqué ko quoi. la koy euh, mm. mi koy. la ñu ngi leen di gërëm bu baax nag ci di leen di leen di bu baax a baax di leen ñaanal ci bisu personne bi fii at bi at bi ñu dugg suñu borom defal leen ci tawfeex. allahumma amiin. Mm. bi nag maa ngi koy yóbbu tamit oustaz Alioune ak euh, waayam mm-hmm. bi. ak ñoom Maodo ak ñoom ñoom kii waaw ñu ngi leen di ñu ngi leen di jaajëf bu baax ñu leen di teewlu jërëjëf mu cëg xewal lu mu ca xewal ci yow El Hadj Ndiaye ñu ngi koy Dakar ñu ngi koy nuyu di ko ziar mooy alom ji mooy lépp mm-hmm. macha allah kon El Hadj ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di ziar soxnaam soxna Marème ak njaboot gi yëpp mm-hmm. yaay Papito ma nga ba Thiès maa ngi koy nuyu bu baax jot naa ko sànq téléphone euh, Papito xarit la ci Abdoul Ndiaye sunu directeur euh, donc ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar di kontaan ci moom nga tontu ko rapidement imam kay rapidement du ci am koy comme da ngay nuyoo rek hmm. naa ba da nga bàyyi bi ko bàyyi bi nga dajale nuyoo kay waaye bu ko <laughs> temps bi temps bi yëpp day jeex <laughs> boobu ne rapidement maa ngi nuyu bu baax a baax a baax <laughs> waaw mais naka la nit di amee invité peut-être defanteeg moom yow tamit ma bàyyi ko rek c'est que du sama invité sama chronique waaw ah, mais d'accord waaw mais voilà man damay saf sàpp ak tontu waaye ba léegi tontu jeex mais li nga wax mais li nga wax dëgg la bu bëgg <laughs> defante ak yow non non ok léegi euh, gars yu baax yi foog ma leen di nuyu de ñoo ma teree kere mbelle de martu ya ah. barki ñoom yonent temps yi yor ma martu de weñ laa yor door yu métti lay door daan ci lu ma ne birig yi birig yi bay bay bay rek xumb comme samedi ba samedi bi laa am léegi kay euh. damay jël lépp rek émission bi yëpp def sa a euh, ak ngoog di <laughs> amoon nañu suñu benn waay damay bañ tudd ba mm-hmm. <laughs> doon nekk di liggéey ci ñun directeur bi ne ko mais yow sa émission bi da nga da nga bëri war dëkk sama fas wër kër géer yi <laughs> yàlla may ma occasion bi occasion bi dama nuyoo moo ko fi remplacé jeex na tàkk ndeysaan macha allah uh-huh. euh, ci li mbokk bi laaj viol ak njaaloo waaw viol dafa gën a garaaw mm. waaye ku jigéen ki ñu forcé violé ko kooku amu ca bàkkaar amu ca daana yàlla mm. au contraire dañu ko war a furlil dumaal ko mm. fompal ko ay rangooñam mm. ka def loola nag moom am na bakkaaru njaaloo am na bakkaaru forcé def lu bon Ah, peine yooyu nag. Mm. dañ ko ko waroon wane parce que réew bala muy tegu ci yoon. Mm. il faut mu ay am loi yu sévère. Mm. dëgg la te mu bañ am loi par parloo. dëkk bu sëñ Touba tëdd alaaji maa nekk si Mawlana Cheikh Omar Fouti ne fi. maam Limaamu ne fi mag ñi baax ñëpp nekk fi. lu ñu ràbb rax ca përëm. wala kon përëm du dem. dëgg lu ñu def dafa war a xeeñ lislaam ma tontuwaale ci question bi kii wax. boo gisee man la baadool du yar moromam. li fi nekkoon république lépp ñun république laïcité la. Mhm. Mhm. tubaab yooyu ñu ko fa bàyyi loon. Mhm. ah léegi jullit yi seen wàllu bopp léegi du genre du pôle. ñun suñu wàllu bopp ñooy jóg di défendre laïcité. am attention ah. réew mi réew la luy suñu yoon. bañ war ko défendre. foofu lay waxee. téere yàlla bii nga xamante ne moo ci nekk. suñu jëlul lépp itam. ñi ko bëgg a jël. nañ leen ci bàyyi ñu jël ko. 95 musulman ci ci ci ci pôle bu doon bii waroon nañu am tribunal musulman xam ko. waaye war nekk lu ñu la lu làqu loo ñii dañu ko xam ñii duñu ko xam maye ca jàkka ja tase ca tribunal ba tribunal di di mirage lépp lépp mais xam euh, da nga wax lu am solo mm. ni baadoo la du yar morom mm. d'accord na adhéré naa cent pour cent mais kilifa moo yar ak njabootam mm. te tey jii benn waaye dafa wax ni ma man de su ma sañoon ñu am une république islamique ma ne ko bu ñu fexee ba am ay foyer islamique dañuy am ay république islamique mais dañu am ay foyer isla euh, euh, euh, laïque mm-hmm. te foyer laïque yooyu chef de famille bi moo fay président de la république mm. Oustaz Alioune Mbaye <laughs> dëkk bii ñuy wax nañu àttewu diine nañu àttewu diine da ngay dem ci génn kër goo xam ne borom mm. kër ga koy wax mm. doomam dana ëmb mm-hmm. ñu laaxaani ko mm-hmm. ngénte ko may ko ko ku ko dóor tudd téeméeri yar bu soobee mu wax la sa maam daan dund ca guerre ba dëgg la wallaay dëgg la doomam sàcc mu utal ko avocat mu layal ko ba mu génn ku ko ni wub sàccee wax la ba sa maam tojee guerre xamul a loolu lu ko war bari na kuy xëyal seytaane di ko liggéeyal te xamoon ne ci yaa ngi ci yow jëwriñ nga ci toolam. jeex na. bari na tey ñu baree baree bari nit IPRES la ñuy parce que foyer yooyu nga wax dañ koy tabax. Mhm. foyer ñoo koy financé. Mhm. ñen mhm. ñooy fay ña fa nekk. man su ma juree sama doom bàyyi ko dem xëy li wuti dépense bu ma jox yaayam. lu ma ko dundale. ma jël ko yëkkati ko teg ci loxo maître mu koy jàngale. maître bu ma war a def ci ñoom ngoro njub. def ci diine. maître baa jëkk a waaye la sol di ko imposé. Mm. xale bi bu segee di for kere yoo am taata mi na ci biti. dëgg la. ndey jaa xale bu précoce. xale bu ko fa yóbbu. ki lay jàngal. mais xale bu ko fa yóbbu ak sa Alioune Mbaye. mais ndeyam ak baayam man mi bàyyi ba ndeyam ak baayam. waaw li may tuddee foyer kër laay wax. waaw baatu tubaab la ma utiliser kër gi laay wax. waaw mm. kër gi laay wax ni bu ñu fekkee ba kër gi nekk mm. une maison islamique. mënul nekk. waaw waaw waaw kon nag kon ñoo tooñ suñu bopp. état ñu tooñ. waaw kon tooñante la xanaa. déedéet te tey am na kër yoo xam ni. am na kër yoo xam ne mënul généraliser wu. non mais am na tey kër yoo xam ne soo fa demee. soo ma xaaree rek. dina ñëw parce mhm. yow tey boo xëy suba tey yaa ngi dawi dépense. Mhm. Mhm. bala ngay ñëw jënd bi sox. bala ngay am temps mën a contrôler ci kër gi. nelaw jàppal nga nelaw. doo nelaw portable bi. fajar nga tëbati. portable sax bi mu xewee yàggul. dëgg la bi mu xewee yàggul. waaye wutum dépense mi. coono bi moo ëpp dooleel koom-koom bi mhm. dañu fexe ba tëj sàq yi mhm. balluwaay bi nekkaloo lu tuuti ngay fay luyaas bu cher di fay courant bu cher ak ndox mu cher te boo sàgganee ñu génne la mbaa ñu toroxal la mhm. jant bi waru laa fenk ci kër gi kon ki wala ki la war a féete ci sa njaboot moo war a xool système bi muy bi muy wàccoo ak digganteem ak boromam waaye système bi muy wàccoo ak digganteem ak parent bi d'accord naa ci bu baax a baax mais xam pour ñu des ci cadre bi waaw Euh, pour ñu def ci cadre bi man ko man cadre viol pour man ko ak lii may wax tey ci lu yoon ak responsabilité yi ci nguur am mm. responsabilité yi euh, chef de famille am mais normalement nag waroon nañoo am euh, foo xamante ne dañ fay attewoo ci diine ku bëgg nga dem waaw am na am na ci tribunal am na am na parce que euh, ci oustaz mooy mooy lii jullit bi. na ci tribunaux yi am na ci tribunaux yi. parce que bu ñu la doorul fii dañ lay door. am na ci exemple. Mm-hmm. tey soo demoon tribunal dañ lay wax ni la ban cadre nga bëgg ñu àttee leen seen dossier. mirage mirage mm-hmm. mais tey lan la uti sax tribunal. parce que ñun ñooy xam ne fekkee ni li ñu diine wax et suñu intérêt nekku ci ñu ne nañ dem ci yoon mel ni diine islam moom du diine yoon foofu la problème bi nekk xam nga tey pour ñëw ci cadre viol bi mbay njëkk wax ni léegi waaw xale euh, soxna Seynabou Dieng wax na ko mu nekk wax lu am solo ni xale lañ daan yàkkataan mhm. ni xale lañ daan yàkkataan mhm. tey suñu demee ba xale bi amatul benn assistance mhm. ndey ji nga xam ni moom la ko yàlla dénk ba mu nekkee ndoxum kese ci biiram pendant neuf mois mu génne ko mu am doom mu ne ko wax yaram Mm-hmm. dundam sax yow laa ko dégg sa ween mm-hmm. ndey jooju da koy xonci wàcc ko fa dem uti dërëm bàyyi moo waxaale ñu borom kër ci kër moom oustaz ak mbalit ci kër ñoom xëy génn rek la moo leen war borom kër ci kër mënta nekk gardien kër gi la ngay inculquer ci sa ay doom ba soo fa nekkee ak soo fa nekkulee lépp ñu def ko loolu looy looy jëmbat la ba ngay indi seen ndey ci biir kër gi. gis nga gis nga kaay wax gis nga fi ne ne. loolu fii fii ba fii ba weer bi di si déwén. Mm-hmm. keneen ku toogoon foofu loolu lii lay wax. parce que tubaab yi dañoo mag. jiituñu ci sunuy ci sunuy maayin. mais duñu fipp ba foo fippu jëm. yow <laughs> yaa ngi di défendre yow yaa ngi défendre yow yaa ngi nekk la wokkaat di jaabul fii de yow yaa ngi défendre di yow fii de yow. non non non pas du tout xaaral xaaral parce que non pas du tout damay ubbi bunt. dafa am bu am solo ubbi nga bunt ne dama la waxoon la. xoolal xoolal état bi nga xam te moom la yàlla dénk dooleem. waaw kii violé. xam nga ni ne dañu wax ne nañ ko criminaliser. waaw acte bi rek d'abord lañu lañu criminaliser. waaw mais ko dégg góom ñu inculpé ko mbaa ñu mbaa ñu def ko dara. dégg si si si si si. ñoo xamante ne jàpp nañu leen. waaye bu loolu amee xale bu xale bi li lay aar ba la ñu lay siif. ok. man foofu laa bëgg loolu nag way jur bi nag loolu nag man du ci tudd état loolu man xaaral mbaytu may ma fa tuuti ma ñëw parce que c'est important du ci tudd état parce que dama wax ni mu ngi am première responsabilité ci xale bu ndaw bi nga xam ne dafa vulnérable mhm. mooy ay parents yi nga xam ne ci ñoom la yàlla jaarale ak ak nekkam mhm. ñooñu ñoo talatul xale yi ci biir kër gi ñi xale yi ñuy wax nañu waxante dëgg ba pare yaa ngi wax léegi dénkaane mm. yaa ngi wax léegi dénkaane mm. yow suñu borom dénk la mm. jox la jumtuwaay yoo téye nga bëgg leneen ba tax nga dem dénk keneen ma laaj la benn question ayca fan yi passé lan nga dégg ñuy wax zéro enfant dans la rue waaw ñan ñoo ñan ñoo ne ci ginnaaw loolu état bien sûr léegi zéro enfant dans la rue mm-hmm. mais ca biir kër gi am na ñoo xam boo ko bëggee yar sa njaboot mm-hmm. ñu fekk la fa ne eh, baal xale bi xam nga man ak yow euh, wuute wuñ ci loolu mm-hmm. waaw d'accord naa ci bu baax a baax a baax mm-hmm. mais dama wax ni ay valeur dama wax ni diine jikko rek la diine valeur kese la cest à man fi ma doon bëgg a ñëw mooy que ne euh, li tax xale yi jigéen ñi dootu ñu yuuxu waaw très bien am na solo li tax duñu ko yuuxu xam nga lu tax dafa nekk ci télé bi ñu tegal leen ko ñu di ko seetaan pourtant sori wax fi ñu wax nii. à l'âge de huit ans. Mm-hmm. yaa ngi commencé di seetaan série yi. Mm-hmm. te léegi série yi da gis Fat Bintu. Mm-hmm. ak Abdoulaye. ñuy fonante ki série yi. nga ne kon sama diine nangu na loolu. waaye ma ne. xaaral rek série sori na nga ngapp ngapp yi nga télé yi. xaaral rek série yi sori na non dama la mi ngi ci bi. foofu rek laa la jëlal. Euh, benn exemple laa jël. mais mun nañu dem encore. xale bi day xool kii lan la gis nii lan lay def nii mhm. ki nekk ci kër gi mhm. nga xamante ni trois ans la ko magee wala quatre ans mhm. moom tamit gis na loolu muy góor ak jigéen pour ñu essayer ko day yomb su ko defee nag bu fekkente ni mag a ngi ci mbedd mi wala mag a ngi ci biir kër gi pour mu violer xale bi xale bu jigéen boobu am huit ans dix ans ak yooyu dafay yomb moo tax damay sàkku ci parents yi nañu gën a bàyyi xel loolu xale yi nañu bàyyi série yi ñuy miin série yi ñuy miin. Mhm. nañ ko bàyyi. Euh, euh, surtout surtout mbay ak télévision bi YouTube beeg yooyu yi ñuy miin. Mhm. nañ ko wàññandiku tuuti. dëgg la parce que dafay yàq lu bari ci éducation xale bu jigéen. da ngay gis xale bu jigéen bu am 12 ans di mhm. di def nii def bouche de canard. ay mais ci yaayam la ko gisee. ak tànn ko ci yaayam da koy gis ci snap yi. mais d'accord yaayam yaayam mooy snap yaayam mooy snap yaayam mooy snap. doo génn sama bouche de canard. yaayam mooy snap yaayam mooy snap. ak bàjjenam ak tante bi ci biir kër gi ci ñoom la ko gisee soxna Mbaye foofu sax sori na xam nga ma fan moo dëkk dëkk daw sama yaram waaw xale yi am trois ans xale yi am quatre ans ñu di leen violé foofu laa wax ni foofu laa wax ni ñoom dañu leen a maye dañu leen a sànni comme oustaz ni ñu ko waxee ana sama voilà très bien oustaz maa ngi wax léegi lu am solo euh, di wax ne nañu xàmmee ki nga xam ne dafa am lu mu bëgg ci xale bi ak ki bëgg xale man damay dama fiir ba dama wax ni jël xale donte yaa ko jur di ko fóon mosuma fóon sama doom jigéen ci gémmiñ nañuy seetlu. di jël ale uuf ko sama góor rek nga mën a ale uuf ko. Mhm. di ko nabbi nabbee di lambi lex di fóon ci gémmiñ ku ko def sama doom man la wàcceel. boo yegsee rek mu daw ñëw. mu ñëw aussi na yooyu nañ ciy bàyyi xel nañ ciy bàyyi xel xëj na nag li ñuy réeral moo di kii da nga ne ah xale bu tuuti bi lan la ko magum jëmm ma leen di doyee. mais bu ñu am na ñoo xam ne dañu feebar. sàcc plaisir. non non dañu feebar jot. voilà ah? loolu nga wax ni mooy rafet njort rafet njort am na ñu parents ñoo xam ne dañoo rafet njort bu ëpp. Mm, mm. tant que dégg ñu teel rek duñ nekk am. taxul dëgg la. mooy li nga wax ci sa doom. war nga mën a teg ci moom bët mbaa nopp. pour mm. yooyu yëpp bu dee xeeñ. nga teel ko fanq. dëgg la bu dee ñaari xale yu nekk ci biir kër. seen wéetaay warul mën a nekk. très ñii nañ jànge fële mhm. ñii jànge fii mhm. mm. bu dul li ñu li leen mën ba bañ xajale mu ñu bokk ndab di lekk mhm. loolu mën nga cee taxaw bu ko defee nag yar bi télévision da ci war a participer école bi daf ci war a participer. Mm-hmm. Mm-hmm. mbedd mi da ci war a participer. Mm-hmm. état door cee participer. boo gisee ma départ ci état. waaw foofu laa jëm si. ndax il faut ñu am nag. lu dimbali parents yi. dëgg la ndax yow ma yafirul mar'u min axiihi wa ummihi wa abiihi wa saahibatihi wa baniihi li kulli imri'in minhum yawma sha'nun bis boobu nit di nga gis sa doy jur daw. waajur gis doomam daw. état gis peuple daw. ñoom ñëpp. imaam gis ay njëwatam doo parce que la ñu waroon waxante di muy lu dëgg dañu ko sànniwoon ci àll ba topp si nafsu léegi nag nga war a am aju màkka am tabaski amu koor am lépp ñu peese la nga ab tu war a dem sa doom ni la nuus sa doq ne mënoo la ndax yaa ma xañ lii mhm. sama tur bi nga ma tudde mhm. du fay ma mhm. lu tax jàngaloo ma diine lu tax yaroo ma lu tax jàngaloo mi lu tax ba ma waree takk soxna major dugaloo moon ci soxna nga seetaan ma ma dugg ci toofi loolu ngay xas jamono loolu mu ngi sunu kante mi ngi ci alxuraan. Mhm. ñu jaare fa tàggoo ndax temps bi jeex na dëkk ah, leer na yàlla wala dañ may mayaat quelques minutes wage <laughs> ah wage ñaata minutes nga may may déy ma ko <laughs> lu am solo macha allah viol waaw euh, dafa am solo trop euh, dinañ ci dellu siwaat du yàgg dara c'est important parce que nag euh, côté ñaaw njort moom bëgg naa ko trop booy juri ñaaw njort viol waaw mhm. tuumaal nit njaaloo waaw mhm. miim njaaloo taqal sa jabar mhm. xas as gor mhm. juróom yii mhm. maa ngi lay rendre maa ngi lay delloo ci surtu nuur yàlla dafa wax ni saa boo xoolee nit ni ko yow looy def fii sa affaire leerul lislaam ne la loo bëgg a wax nga diw mi doxaan rek lay liggéey mun a ah, jiñaate nga luy sa preuve ku ko seede mhm. soo indiwul seede yow juróom-ñetti fukki yar lañ lay dóor mhm. mm. quatre-vingts coups te bare dootoo mën seede kon tuuma dañ ci war a ñëwaat kooku tam tem la mm. mu am solo waaye sa wiyel bi am na solo de ah. nee na da nga ma waroon bàyyi ba daara ya parce que <laughs> ba daare daara a non daara ak corona yow la a oustaz Mbacke Sylla en direct laa ko yox fii Mbacke Sylla léegi man mënatuma am léegi man <laughs> sama sama dongo bii léegi di di Oustaz Mbacke samedi prochain <laughs> daara ak corona ni ngeen koy dundee loolu moom insha allahu taala dañ ci ñëw mu bàyyi la nga jaare fa tàggoo metti na daara non moom day ñëw bu ma ko wooyee far force kalaane ko ñëpp danoon ñeme wala yuuxu ndax ki bàyyi la suñu bopp muy suñu borom waaw ndax ñun état mus noo war lool mus noo def suñu xeel tam ni ñam gi war nañ cee mus moo tax ginaar yi lu mu neex neexit ñun defuñ la ñuy dund ba toll nii mm. moo tax bu ñu dee jooy sax ñun ay ree lañ ñuy def mm-hmm. nanu état dimbali nanu jox nanga ñun daa mën a loolu la nga tàggoo <laughs> gërëm la gërëm la bu baax man maa lay jaajëfal euh, baba léegi laa ko woo bi ñuy julli tisbaar léegi léegi non moom mu ngi ci mission mu ngi ci voilà mu ngi noonu loolu kese ko ñoom ab sëy bu may takki fa la jaamu laay def yàlla na baax yàlla mottali waaye sa jëmm ji mm. ndax mbaa mbayang da nga yaru waaw da nga yaru ba pare da nga yaatal mbayang laa gis muy koo xamante ne mm-hmm. li mu produire ci ay nit ñu nekk ci yeneen télévision kenn xamul nu mu toll te doxewu ko waxewu ko te itam teggin ak yar jàmm ji noonu la amee mm-hmm. Alaaji Njaay doful mm-hmm. Maram Njaay doful boo fi nekkoon yàq mbaam nu muy demee wala nangam nangam nangam ñu am nuñu nuñu nuñu la kiyee mm-hmm. mais xam nañ yow ci taawu kër nga bokk dëgg la kon nag vraiment ah, ah, sa daguma la soo xamoon way juróom bu jigéen ah. di nga xam ni mbay nga fortaatuwul dara ndeysaan ndeysaan ñoo juddoondoo ci benn quartier benn quartier <laughs> yaa ak moom <laughs> waaw ma yuuxoo seen waa kër dégg ma seen waa kër yuuxoo seen waa kër waaw waaw fi ngeen dëkk ci tëngi macha allah benn kër wallaahi lépp bi. yooyu ba nii nga nii ngi baan di euh, sama yaay ji na ci Maris. Mm, mais yaa yaa Mbaye dañu. waaw doo ma asnul gi nag oustaz. su su yaay bu siis bu leen siis yow ak Mbaye. gis nga maire gis nga maire bi. Euh, ndeysaan daf ma woo di jooy. Mm, ci xale bu ñuy dóoroon ci daara ji fan yii passé ñu génn ci réseaux sociaux yi. dafa jooy ba man man mujj mm. dama mujj tiit naan maire bi mbaa tension bi. wallaahi la fu mu dégg affaire sociale dugal ci xaalis. kooku di Oustaz Taxa Ñang di suma mm. xarit di ku baax koo xam ni man mii dama a wax a wax ba mm. <laughs> tarkal xam nga man da ngeen maa yàq da ngeen maa yàq léegi kenn mënatuma génn ci ñooñ daara dafa Oustaz Makhtar Sarr sama jabar bu baax noir am na base am na sama rouge noir ah. <laughs> Saint Valentin rek kañ la kañ la fan la mais li ma jaaxal muy sama yaay moom rek laa bëgg ci sama fii yàlla na ko yàlla sunu borom yërëm te jéggal ko euh, di ci profité nag di félicité sama rakk ji. ndeysaan euh, Fatou Thiam madame Ajuma Diaw. ndeysaan macha allah sama yaay jooy na ko ba taay faatu sa toogaay bi faatu sa toogaay bi ndekete buy am borom kër da koy fekk ci biir suuf. ndeysaan waaye nag li neex yàlla muy sunu caat di sama rakk ñu bokk ndey ak baay. ndeysaan euh, madame Ajuma Diaw ma ne ko jàmm rek ngay am ni nga taxawoo sa grande sœur. mu dugg ci biir suuf. sama yaay feebar itam nga taxaw même chose ba ku sax ba ñuy woote pour ku sang moom moo demoon moom moomu di caat kon yaakaaroon naa ne at mii moom doo ci génn mukk te yàlla defalu la baax yàlla na la yàlla bàyyi ak sa borom kër boobu di àjjuma jaw yàlla boo ci gis dara euh, lu la naqari seeni Saint Valentin yàlla bu mu jeex benn yoon ndax Saint Valentin un an deux ans trois ans ba pare jeexal ko feetu bu mbëggante xam nga li may wax ni rek la ñuy kii bëgg rouge noir yii damaa tal toggee samay tànk def sama saak rouge dëgg neexul bay dinañu daj non dëgg neexul ay xale yi du xale yi rek ñooy bëggante de ñu maire yi bañ leen yéen tam wut seen rouge noir def ni man kon bëggeelu màggat dafa ah waaw baax na kii a fa jaar nag mbaar kon bii loolu la ñu. moo tax nga kor ruus bi bii <laughs> aaw bi aaw bi fa <laughs> jaar yow maa la dégg aaw bi la aji Far Sall kontaan naa ak yow. <laughs> jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax Ndeye faal euh, bu euh, APEXI moo jaar ci tenue bi macha allah deux pièces bi mant bi. Euh, mi ngi foofu ci Yoff APEXI sama wetu kër boo laajtee Ndeye faal rek wala nga woo ko 77 631 28 59 77 631 28 59 damay bàyyi Baba Ndiémé mu tàggoo waaye Baba Ndiémé. Mm-hmm. joobeel ma ki ñuy wax sëñ Saliou Mbaye. sunu xarit njurul. waaw ku baax sëñ Saliou mbay kooku bu sëriñ Saliou dekki woon mm. wallaahi dëgg la du defaraat toogaayam wallaahi dëgg la mais nag tey nag nit mbuboo woon na dara ba tàyyi barki Seex barki sëriñ Saliou barki nangam te bu ñu la xoolee la ngay def ca biir mm-hmm. ñu xeeb la te yaa gën a gudd kurus mais nag euh, defaru sëriñ Saliou la waaye nag waa cëm il faut que mu am lu ko topp moom sëñ saaliw parce que sëñ Saliou dafa dem xel kom fekk mm. fu dara nekkul mu def fa dara bañ jëlee fa dara mm. ba ku fa toogoon sax boo jógee dara ja nga mën koo am mbàyyi nga ne sëriñ Saliou Mbaye fii fekku fi dara waaye def na fi dara moo tax sëriñ Saliou Mbaye nii rek lay mën a mel borom jurul nekk ci États-Unis di mbokkum ndeyum nag wax dëgg yàlla Thierno Amath Sow mu baax mi lu mu def ak Wally Seck damay bañ ko ma catu xam mu def lu mel ni lii gor suñuy ca Tëngéej def. Alé Sène Alé Sène waaw góor kor Ndeye Aida. fa laa jëmoon Alé Sène ñu koy nuyu bu baax a baax. day xale tey fàttaliku dem macha allah tey nag yorul ay yëfam di ko xollal non non ki la fàqal oustaz Aline ba mu yaatu mu ne kaay dëkk kaay dëkk bëggul ñu sànni la ay xeer Alé Sène loolu la ma defal sëriñ euh, Saliou yow loolu la defal loolu la ma defal waaw kay eh, eh, eh? mi ngi tudd mm. te mu mu mu doon sama dëkkandoo. ndax man xaban laa dëkk. temps ba jeex na de. waaw diggante xabaan ak got. waaw fara daan jaar. macha allah bari yërmande. Mm. laay dëgg la. jëm jëmmi yërmande jooju mm. doomi Sëñ Tuubaa jooju ñu a gis. Mm. yal na nu yàlla sëñ Saliou moomu. amiin ba corona bi jeex. amiin amiin dafa daan wax naan ku dul yàlla ak doo yonent bi maa la ëpp yërmande ci jaam yi. ndeysaan loolu itam daf ko wane. te muy dëgg te loolu rogalaat na ba ci ay turandoo. am sëriñ Saliou moo gis day am yërmande. fekk xar mu ndaw kon borom jurum daal. borom borom jurum. <laughs> macha ci États-Unis lu mu mën ren yàlla na mën déwén lu ko ëpp. waaye soxna Mbaye gis nga tey fi ma génn ku génn fii waaw su ma jarbaat waaw euh, euh, dëgg yàlla di mm. ko li muy defal Talla Gueye sama doomu ndey di ko defal Makka sama mag moom la may defal ñun du ñu taxaw du ñu xotti du ñu def dara la ma Marème Ndiaye ne woon ma ne ko jël ma ci rajo bi mu ne ma du télé bi laa lay jël ma ne ko aw ma yëree tele aw ma dalli tere <laughs> macha allah fa tabaarakallaahu Ndiaye saa yu ma toogee rek bu ñu tuddee affaire yére rek sama xel day dem ca baat boobu tey jii tey tey laa mujj ëmb ñaari saaku mhm. yónnee ko fa ma koy yónnee te loolu yëpp télé bi la ak nit ñu baax ñi li ñuy defal mhm. nga wax lu am solo ci Alé Sène Kor mhm. euh, Ndeye Aïda di rakk ci Nabou Sène macha allah ñu yàgg muy démb te it reewul te euh, lañ di wax gorsi Mm-hmm. loo diggee def ko ji waaye mën góor aale seen ci boppam kenn gënu ko macha allah yàlla na yàgg jàmmi Serigne Saliou yàgg jàmmi Waly Seck ak soxnaam euh, yàgg jàmmi ñëpp daal yàgg en tout cas daal bon fête de Saint-Valentin à tout le monde man moom ma aju ah, mm. allez cocho mbokk yi jàmm ak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu fi amaanillah jaa ngeen jëf